li xew démb gàcce la ci Sénégal àdduna bi yëpp di ñu seetaan lii de lañ leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel warul woon sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma laa procureur di ci def réquisitoire ba juge d'instruction di ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bor won yegg foofu yeb wax ñu won lolu parce que dañu jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dé def bu dé def nañu dara yoon bañ ñoo wara top topp déedéet waxuñu ko foofu ndax liñu gëm ñun ak liñuy dund moy li nga ne dañu ko ci diiné bi yoonte bi alayhi salam waxé ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka su noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man loolu laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu gi ay feni neen la dossier boobu warul woon sax ñu koy yëkkati na nak mu yegg fi ba lu mat danaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci li lañ doon bañal senegal li xew demb defé nak senegalé bu ne fi mu tok rusna ni ma len ko doon bañalé nak non la ko Macky Sall bëgg la len ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yépp ma baamu ko loxo Macky Sall ba waxé nak dañ nan mom dañu wax mu singali Macky Sall waaye Macky Sall mooy wax procureur defal mu def loolu est-ce que sénégalais xam nañu ko Macky Sall mooy sant procureur jaaree ko ci Ismaïla Madior Fall mu def mu ne ko bàyyil mu ba kon bi procureur Bassirou Guèye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay ñaawteef ba ñëpp gis ko te loolu umpul Macky Sall mu encouragé ko ci ne ko demal parce que boobu ja gisul leneen lu sama adversaire politique bi ma gën a sonnal bi ma gën a jaaxal am naa fu ma ko téye loolu andi woon fi lim fi andi woon diggante février ak mars 2021 Sénégal yëpp génn ne ko andu ñoo ko li ngay def ci dossier bi ñaaw na na te teguwul ci dëgg ndax bu ñaawoon te salté te tegu ci dëgg it yoon def li mu war def rek ñu foog ne bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañu war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba matt faw rek mbir mu dagg mu nekk ci loolu ku ne woon Sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw makisal dina jëlaat dossier bi andi ndax lii lépp weesuwul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dig ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bu ñox maa xam jàllu def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow sooy instruire dossier ba nga koy instruire yëpp mësuñu laa andil preuve boo mën a téye te looloo xew démb ñàkk preuve boobu ba Sénégal yëpp gis ko ñu dem nag ba démb ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem andi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisu ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarti ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaat ñaata yoon la ñu woo Ousmane Sonko ci justice ci lu tegul ci yoon. ñu xamni procureur mom moy programme te procureur moy Ismaël Madior Fall Ismaël Madior Fall moy Macky Sall ñu ne nak citoyen du négocier ay conditions yu démé man négocier wu ma conditions yu ma démé justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a su dé du yoon du mako def man négocier wu ma dé ndax do nekk ci dëgg ba paré di négocier niñ ma bëgg ah, di di tëj sama koñ di terroriser sama njabot di toj samay auto di ma gaañ fi léegi looloo ngi fi du ma dem uyu ci kooku du négociation donte nag am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la lañu bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak ñun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne leen il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun a dem di ñëw saa ñu koy teg li ñu koy teg. ñom nak ñu japp ni man ma doon négocier man négocier wu ma di man lima nek dama ko gëm nek ci deug kuma ëpp doole di ma so may ray di ma ray ci deug way négocier wu ma kon ni ñu ko programmer ci fan yépp procès sur procès bu la ci gëna ñak solo nga ne bi la te lépp ngeen xam lan mooy way bi ñu néwon donc gatché gi am démb ay nit yo xamne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yo xamne bis buñ ko génné aduna tukki defe naa rek bu may mujjé wax néna len ku and ak Ousmane Sonko bo tëddee demal nelaw ba yandor ndax lu toll ni tarfata ay ci preuve amuñu ko ndax lu am moy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokk Sénégal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle na ci jigen banan maangi dem di sif jigen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa senegal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seet lu niroog dàngin gu AVC ma naan moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon loolu rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama digganteeg xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Gabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg ojo yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj ne ko ndax audio yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga dangaa ëmb depuis ñetti at wala ñaari ak genn wàll boo ñu ne li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxeet nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone mosoo génne ay preuve nga dellu si def say audio wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour Diallo moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bari du bakkani ci rot rek waaye ñaata ay alalu jàmbur yàqu na ci ñaata yoon la ñu jël réew mi naj ko ba kenn no noyeetu ak image bi ñu yóbbu ci senegal ci international man mi nga xam ne maay principal victime bi bu ma amuloon sama fulla ak dëgërlaay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni du ma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko du ma la mus a su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii Macky Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy jëlewaat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot waruñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a def loo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba faalewuñ ci Mademba faalewuñ ci preuve wuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci Sénégal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxee ba tey xam ngeen ni li xew démb yoon dafa ne munoo atte nit en matière criminelle lu dul ku koy layal avocat Ken munul def procès ta avocat amul démb nday soxna su dul nday nday xadi njaay su dul dara sax di jigéen goo xam ne mi ngi toll diggante ñu naan juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer nga téye ko ci suba ba xaaju guddi nanguloo ko sax mu am avocat bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat da nga war arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb musul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom neexa di ndax am nga laaj jooy laaj témoin yi ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa ñul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mën a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu ci bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky Sall ne dee rek même suma dul doon candidat sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme yu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog dig na la lii dig na la lële nee na dina la def nii na def laa mu ne bakkanam la ci teg faaw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waaye waay waaye réew du doxee noonu. réew lay doxee ci kaw ay charge li war a tere Ousmane Sonko nekk candidat dafa war a doon lu wóor te wér waaye du ay caaxaan bi ñu commencé ba léegi ci tappale la nekk nee nañu Ousmane Sonko jot na convocation waat naa ci yàlla billaahi wallahi bu dee jot naa convocation yàlla ma yàlla alak ilaa yow biti te ñoom ñi wax ni jot naa convocation ku ci waat lii lakk commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk ma ma taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñi ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii si Ziguinchor le 11 commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nekk Ziguinchor moo mu fekk sama buntu kër. même commissaire Adramé moo defaat beneen rapport le 16 ne Ousmane Sonko jotuñu koo gis joxuñu ko convocation te moom nee na la 11 jox nañ ma convocation document yëpp mi nañ ko génn ngeen gis pour woon leen tappale gi nekk ci justice fi mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon de lors que jox nañ leen commande politique ne leen yéen a xam fu ngeen koy jaare waaye faw rek ngeen dagg bopp waa ji président Ablaye wat dama dañ ma envoyé tay ben vidéo muy def ben interview ben tuba ne ko way mais un procès est risqué mune way en Afrique un procès est toujours risqué mais j'ai toujours dit qu'un procès politique ne se gagne pas au tribunal ça se gagne avec l'opinion su ngeen gisee sama taxawaay début ba léegi loolu laa leen bëggoon wax li xew démb won na leen ni lii weesuwul caaxaan waaye su doon dañoo caaxaan ci lu ko jar mais jël suñuy doom di def yu salte yi seen kanam àdduna yëpp dañu ñu seetaan lépp jàpp ni mën nga détruire ab doomu aadama lépp nga jàpp ni ndax Sonko mu sell ni ñuy dégg mooy dagg seen xol image bi sénégalais jàpp ci Sonko ni ah kii de ku baax la kii di julite la kii ku jub la mooy dagg seen xol ñu jàpp ni procès bu mel nii mënoon naa yàq image boobu lépp ñu teg ko ci fen ak fenk li am nag ñu dañ koy dellu ci yàlla te yàlla mooy leeral ay mbirum ba mu leer nañ lépp dama ko jàppee nattu ay yonent sax nattu nañ leen ci lu mel nii moo tax bi mu naan ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaclamanna allah alladina sadaqu wa la yaclamanna alkaadibin yàlla dafa ne duma leen seetaan rek ngeen ñi fëgg dënn naan gëm nañu gëm nañu te duma leen nattu du ma testé ba xam ndax yéen gëm-gëm mi ngi ci yéen noonu ma ko defe woon ñi leen jiitu nga xam dama leen doon nattu ba xam kan mooy wax dëgg ak kan moo du kan mooy wax safaan wa nattu googu nag buñ ko jàpp rek ci wàllu imaan pas-pas ci diine mais yéen ñi ma bokkal projet bi yàlla ñuy nattu ba xam ndax li ñuy woote ci projet bi dëgg la ci ñun wala du dëgg fii ñu yàlla jaarale ñetti at yi bu metti loolu ci ñun ak suñu njaboot ngeen may ma ma rendre commence sama njaboot rawatina samay soxna ndax dund nañ lu méttee méttee métti te kenn mosuma cee wax du dépassé te kenn mosul jóg ne maa ngi génn kër gi kenn mosul toog ba wax lu jëm ci lii. te ñëpp xam ni li natt gu metti la ma leen di rendre hommage soxna Khady kebe ak soxna ana jamanka ak samay juuf ak samay mbokk mais ak waa parti bi yëpp ak sénégalais yëpp nag ndax sénégalais yëpp koo laaj mu ne lii xam naa ni ay caaxaani neen la waaye natt yooyu la ci yàlla jublu mooy gën a peese suñuy mbagg ba xam ndax li bëgg a yóotu nañ ko ñun de dund nañ ci ñetti at yi loo xam ne gaw ma ni am na om politique Sénégal bu ko mos dund waaye nous sommes toujours debout parce que suñu lépp dañ koo dénk suñu borom dañoo am gëm-gëm te yàlla daf ñoo sant muñ ku yàgg muñ rek dëgg feeñ moo tax may woowaat Sénégalais yépp manipulation bi bëri na. nee naa leen lu toll ni joto jote maag loo xam ne lu ñu nangu la sax amul sama diggante ak ndaw si te depuis le début wax naa leen ko waaye manipulation bi bëri na lañ ca bëggoon defe naa tey la furaas ndax xëy nañu seen presse yëpp génne ay titre ku ne di wax lu gën a bon fu ne nga dagg ko waaye peuple bi gëmu ko seen sànni tàccu def nañ ko lañu mënoon yépp def nañ ko te amuñu ci la ñu bëgg lañu mënoon yépp def nañ ko te amuñu liñ ci bëgg manipulation dem na ba nga gis ab journal bu mel ni l'observateur nga xam ne Ousmane Sonko lay bañ a dégg jël li nga xam ne moom la docteur Alfousseyni Guèye wax ñu wëlbati ko totalement ba defe naa balaa may commencé émission bi laa gis ni kooko bind na sax communiqué ne liñ ko wax loo yëpp mosu koo wax nit loo ko bañ bañ bañ bañ dee ko waxal lu mu def Sénégalais yi kenn dofu ci ñu mën a la ñu mën a xool lañu te loo xam ne suuf ba ngoon jot réseaux sociaux yi nit ñaa ngi doon def reportage en direct nga jàpp ni yow mën nga am xëy rek daa di chargé wax lu ñaaw wax lu bon génne Ousmane Sonko ci xolu Sénégalais yi tey la Ousmane Sonko gën a nekk ci xolu Sénégalais yi li saa su ma génnee ñu gaawantu sànni lacrymogène xam nañ ni fu ma génn Sénégalais génn ànd ak man kon mu des nag fu ñu jëm. bu ku xool li xew démb xam ni dossier bi dara amul ci amul benn li ñuy wax élément constitutif d'un viol début de preuve sax amul ñëpp gis nañ ko defe naa li gars yi naan fen di bi jaaw ay jii Sénégal yépp xam nañ ni ay caaxaan la teewut pexe bu ne ñu ngi koy ut pour jaaree ko ci justice pour foqati ab condamnation

tey la suñu wala suñu phase terminale u marche vers le palais commencé incha rabbi nañu gën a dëgër gën a takk suñu digg ak sénégalais bu mu doon même boo nekkul membre passif waaye rek nga bëgg réew mi te bañ injustice yii ñuy def ni waroo ko nangu ndaxtam tam dinañu seetaan loo xam ne tôt bu ñu amee lu ñu bëgg ba ci opposition bi nag ñi ma ko bokkal mu leer ni Macky Sall bu amee li mu bëgg ci Ousmane Sonko dina jafe trop mu am leneen lu ko të ndax loolu la yàlla dogal def na ko defaat ko mu yomboon loolu ci moom yàlla dogal bi mu egsee ci ñun la jafe ci moom mu jàppal ñu ko nag en boo xam ne ndax jàpp na ni moom euh, xàlloon na yoon woo xam ne ay waxu troisième mandat yooyu formalité lay doon ci moom Nous ci ñun nag ñu doon dangar gi nga xam ne moo ko tëbale personnel ne faw rek ma def lu ma def ko lu méttee méttee métti lu nit lu métti rek interpeller chacun et chacune ci ñun sénégalais Ousmane Sonko amul solo mais ku lu dëgg buy dal sa kaw dina la bett te doo ci mën dara réew mi justice lañ fi bëgg réew mi jàmm lañ fi bëgg te justice mooy andi jàmm réew mi tolloole nit ñi lañ fi bëgg réew mi bañ bàyyi di jël li nga xam ne dénk nañ la ko ci doole nguur di ko dalal ci kaw nit ñi loolu dañoo bëgg mu jóge fi gannaaw yàlla ma baamuwaat ko gisuma ci àdduna luy dund loo xam ne mun na détruire Ousmane sonk ndax li ma defar ñoom xamuñu borom bi la moo tax may soññaat ñëpp di woo ñëpp pour ñu jóg jeunesse bi ci yéen lay doore nu ne ñu ngi koy def nag pour détourner leen façon parade bu nekk ñi ngi wut façon influenceur bu ne pour yaakaar ni mën na leen détourner yenn jeunesse bi waaye gëm naa ni am ngeen conscience ni seen avenir ngeen ni du jëm Ousmane Sonko man nu mu tuuti tuuti la ma waroon am ci àdduna am naa te doylu ci avenir nous sommes à huit mois juróom-ñetti weer pour ñu jël réew mi yor ko ci yorin boo xam ne kenn ku nekk ci yéen dina de xalaatuma Afrique fii nañ fi yoree nii réew te mus wax lu ma leen mës a wax gis ngeen ko kon su ma leen ne lii nañ ko def ngeen war maa gëm ndax gisuma lu ma ko jaral ci àdduna man alal daw taxumaa daw tur taxumaa daw daraja taxumaa daw waaye liggéey ngir yàlla rek lay doon sama satisfaction mooy liggéey ba Sénégal yëpp ne waaw góor ma dellu toog fi ma toog keneen toog continuer liggéey bi waaye du dara lu ma ci ut ci alal wala yu demee loolu bàyyi nañ ko yenn politiciens yi kon c'est pas le moment de baisser les bras Yaw ndaw sama jeune ak fo munti nek. muy artiste bi muy artisan bi muy kenen ak kenen. étudiant bi élève bi Kep ku munti don. transporteur bi baykat bi Napkat bi Yaw sama ndaw rew. dama la talal sama loxo ne la dama bëgg ñu jaayante ci defar réew mi pas jaayante ci sànnil naa ko kàpp rek waaye ñu jaayante ci defar réew mi définitivement yow euh, euh, sëriñu daara yi wala nitu daara yi de manière générale yow transporteur bi yow keneen ak keneen ak keneen ndax ku rek juum maa ngi dellu tàllal leen loxo di leen woo ci mobilisation exceptionnelle Macky Sall na dellu gannaaw ci lii mu nekkee. lu ko moy nañu jaral sax ñu ñak lepp way nañu taxaw ak mom jamarlo mom li lañu bëggoon waxtaan ak yéen di leen wax ni bés ni ki ëlëk gën sa gudd gënaaw ëlëk bu soobé yalla nañu door delu si ci dakaru ñun ñëpp nañu waajal ndakaaru ndax fa la mbir di amé delu jaalé ñi nga xamni ñak nañ ci nit té mo jeex ci Sénégal waxat nak tamit ni war nañu taxaw tembe bañ ñu jappati suñuy nit ndax ki di Macky Sall su lambe mu no du delu gannaaw day continuer di continuer japp ji bëri na te tagul ci yoon te kenn mucc ci ku bind article sax ñu ñu jël la tej kenn mucc ci kon dañu tak suñu ndax li wessu na dictature legi dañ doon wax dictature rampante waaye dictature bu fess gann la ñepp diko gis kon nañu takk suñu digg jàmmarloog Macky Sall bu xel bu delloosee xelam xam ni moomu réew mi donn ko ñun ñëpp ñu mayante jàmm lu ko may bu ñu gendarme fees ay gendarme moom fees suñu bët bu ñu ay policier mu fees suñu bët ay nit lañ ñuy ay nit te gis ngeen bi ñu taxawee ni ñu waroon taxaw mois de mars fi mu mujje kon maa ngi woo ñëpp ci ñu jóg taxaw gën a takk ndigg yi gën a farlu di sant sénégalais yi nag ci seen soutien façon message bu ne maa koy jot mënuma tontu ñep di len sant ci sen soutien ak seen kóolute ne len nag lepp lo xam ne maa ngi ci doon def ben fasinaat ci def témer fi mu togn kon ñu ngi di di sant wa ko wees ak foo munti bok ci diiné wala ci waso wala ci dëkkuwaay li xew démb gàcce la ci Sénégal àdduna bi yëpp di ñu seetaan lii de lañu leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel warul woon sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma laa procureur di ci def réquisitoire ba juge d'instruction di ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bi won yegg fofu yeb wax ñu won lolu parce que dañu jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dee def bu dee def nañu dara yoon bañ ñu wara top topp wax ñu ko fofu ndax liñu gëm ñun ak liñuy dund moy li nga xam jangal dañu ko ci diiné bi yonent bi alayhi salaam waxee ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka su noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man loolu laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu bi ay feni neen la dossier boobu warul won sax ñukoy yëkëti rawati na nak mu yegg fi ba lu mat daanaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci li lañ doon bañal Sénégal li xew demb defé nak sénégalais bu ne fi mu tok rusna ni ma len ko doon bañalé nak non la ko Macky Sall bëgg la len ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yépp ma wessuul loxo Macky Sall waxe nak dañ nan mom dañu wax mu singali Macky Sall waye Macky Sall moy wax procureur defal mu def lol est-ce que sénégalais xam nañ Macky Sall moy sante procureur jaaré ko ci Ismaïla Madior Fall mu def mu ne ko bayil mu ba kon bi procureur Bassirou Gueye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay def ba ñepp gis ko te umpul Macky Sall mu encourager ko ci ne ko demal parce que bobu gisul leneen dudul sama adversaire politique bi ma gën sonnal bi ma gën jaaxal amna fu mako ko téye andi won fi lim fi andi won digënté février ak mars 2021 Sénégal yépp génn ne ko andu ñok li ngay def ci dossier bi ñaawna na na ta teguwul ci dëgg ndax bu ñaawon ta salte ta tegu ci dëgg it yoon def li mu wara def rek ñu foogoon ni bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañu war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba matt faw rek mbir mu dagg mu nekk ci loolu ku ne woon Sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw Macky Sall dina jilaat dossier bi andi ndax lii lépp weesuwul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dig ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bi ñu wax maa xam jàll def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow sooy instruire dossier ba nga koy instruire yëpp mosuñu laa andil preuve boo mën a téye te looloo xew démb ñàkk preuve boobu ba Sénégal gis ko ñu dem nag ba démb ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem andi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisu ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarte ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko def loolu te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaat ñaata yoon la ñu woo Ousmane Sonko ci justice ci lu tegul ci yoon. ñu xamni ni procureur mom moy programme te procureur moy Ismaël Madior Fall Ismaël Madior Fall moy Macky Sall ñu né nak citoyen du négocier ay conditions yu mu demee man négocier wu ma conditions yu ma démé justice dama négocier wul dara dama né liñ ma bëgg tek su dé du yoon du ma def man négocier wu ma dé ndax do nekk ci dëgg ba paré di négocier niñ ma bëgg ah, di di tej sama koñ di terroriser sama njabot di toj ay auto di ma gaañ fi léegi looloo ngi fi du dem uyu ci kooku du négociation donte nag am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la lañu bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak nun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne leen il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun a dem di ñëw saa ñu koy teg li ñu koy teg ñoom nag bi jàpp ni man maa doon négocier man négocier wu ma man li ma nekk dama ko gëm nekk ci dëgg ku ma ëpp doole di ma soo may rey di ma rey ci dëgg waaye négocier ma kon ni ñu ko programmé ci fan yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb ay nit yoo xam ne ñaari at ñu ne yoon nañu ay preuve yoo xam ne bis buñ ko génnee àdduna tukki defe naa keroog rek bi may mujjee wax nee naa leen ku ànd ak Ousmane Sonko boo tëddee demal nelaw ba yandoor ndax lu toll nit tarfata ayam ci preuve amuñu ko ndax lu am mooy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokki Sénégal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle naa ci jigéen ba naan maa ngi dem di siif jigéen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa senegal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seetlu niroog dàngin gu AVC ma moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon loolu rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout de suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama digganteeg xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Diabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg ojo yooyu démb. li tax tegu ko deglu wat ko lu dul ne ko ndax o jey nangu ko mu ne ko waaw nangu ko wax waye dama don kaf ko xamne ne da nga ëmb depuis ñetti at wala ñaari at ak genn ñu ne li tax nga wax ko dama don kaf dama don naxeet nga delu si ni yorna ay preuve yu dul jeex ni ngi fi sama téléphone mosoo genn ay preuve nga delu si def say audio wax lu doy waat lo xamne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour Diallo moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bëri du bakkani ci rot rek waaye ñaata ay alalu jàmbur yàqu na ci ñaata yoon la ñu jël réew mi naj ko ba kenn noo ak image bi ñu yóbbu ci senegal ci international man mi nga xam ne maay principal victime bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgërlaay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni du ma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko du ma la musa rusloo su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii ki Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy jëlewaat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot war ñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a def loo dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci masam faalewuñ ci mademba faalewuñ ci preuve wuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci Sénégal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxee ba tey xam ngeen ni li xew démb yoon dafa ne mënoo àtte nit en matière criminelle lu dul am na ku koy layal avocat kenn mënul def procès te avocat amul démb nday soxna su dul nday nday Xadi Njaay su dul dara sax di jigéen goo xam ne mu ngi toll diggante ñu naan juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer nga ko ci suba ba xaaju guddi nanguloo ko sax mu am avocat bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat da nga war a arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb musul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom Ndeye yi ndax am nga laaj jooy laaj témoin yi ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa nul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mën a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu ci bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky Sall ne dee rek même su ma dul doon candidat sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme yu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog dig na la lii dig na la lële nee na dina la def nii na la def laa mu ne kanam la ci teg faaw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waaye waaye waaye réew du doxee noonu. rew lay doxé ci kaw ay charge li wara téré Ousmane Sonko nek candidat dafa for doon du wóor te wér waaye du ay tiaxan biñu commencé ba légui ci tapalé la nek nekk nañu Ousmane Sonko jot na convocation Wat na ci yalla wallah. wallahi budé jot na convocation Yalla ma yalla alak ila yow bitim te ñom ñi wax ni jot na convocation ku ci wat li lak commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk ma ma taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñi ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii si Ziguinchor le 11 commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nekk Ziguinchor moo mu fekk sama buntu kër même commissaire Adramé moo defaat beneen rapport le 16 ne Ousmane ko jotuñu koo gis joxuñu ko convocation te moom nee na la onze jox nañ ma convocation document yëpp nañ ko génn ngeen gis pour woon leen tappale gi nekk ci justice fi mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon dès lors que jox nañ leen commande politique ne leen yéen a xam fu ngeen koy jaaree waaye faw rek ngeen dagg bopp waa ji président Ablaye Wade dama dañ ma envoyé tey benn vidéo muy def benn interview benn tubaab ne ko way mais un procès est risqué mu ne way en Afrique un procès est toujours risqué mais j'ai toujours dit qu'un procès politique ne se gagne pas au tribunal ça se gagne avec l'opinion su ngeen gisee sama taxawaay début ba léegi loolu laa leen bëggoon wax li xew démb won na leen ni lii weesuwul caaxaan waaye su doon dañoo caaxaan ci lu ko jar mais jël suñuy doom di def yu salte yi seen kanam àdduna yëpp di ñu seetaan lépp jàpp ni mën nga détruire ab doomu aadama lépp nga jàpp ni ndax sonk mu sell ni ñuy dégg mooy dagg seen xol image bi Sénégalais jàpp ci sonk ni ah kii de ku baax la kii di julite la kii ku jub la mooy dagg seen xol ñu jàpp ni procès bu mel nii mënoon naa yàq image boobu lépp ñu teg ko ci fenn ak fenk li am nag ñun dañ koy dellu ci yàlla te yàlla mooy leeral ay biram ba mu leer nañ lépp dama ko jàppee nattu ay yonent sax nattu nañ leen ci lu mel nii moo tax yàlla bi mu naan yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun